li si yéenekaay yi ak Ami Dem Senghor internet yu 5 TV ma seeni nopp ma dégtaleen li si yéenekaay yi muy Sud Quotidien La Tribune Walf Quotidien Direct News Vox Populi L'Évidence ak L'As yéenekaay ñépp a xëy rek daal di àddu si jébbal bi nga xam ni moom lañu doon jébbal boroomam niki démb kii di Cheikh Ahmed Tidiane Niass nekkoon doom si Mawlaana Cheikh al Islam Baye Niass nekkoon itam ñeenteelu xalif bu Medina Baye Walf Quotidien xamle si ni Pape dem na si këram bu mujj ni au revoir Baye Cheikh Sud Quotidien teg ca ni Cheikh Ahmed Tidiane Niass denc nañu ko si kaw mbooloo bu bari La Tribune di ko dëggal ndax xamle na ni lu ñeel denc bi ñu ko doon denc Baye Cheikh Ahmed si kanam mbooloo bu bari lañu ko defee si ñoom nag ay nationalité yu bari lañu fa nemmeeku ba tax kaay bi bind ni démb nekkoon na alxames boo xam ni kenn dootu ko fàtte Direct News teg ca ni moom mi nekkoon xalif général bu Medina Baye àdduna yépp a ko rendre hommage Vox Populi di si xibaar nemmeeku faale wu ñu lii di jàngoro ji jàngoro jooju nga xam ni nag bu ñu sukkandikoo si critique yéenekaay moo ngay wéy di faat ay bakkan si réew mi ndax journal bi xamle na ni tolloo ko ñaari téeméeri doomu aadama ak ñaar fukk ak ñett mbas mi faat na leen vox populi di ko ca feelu ndax bind na ni limug ñi faatu si mbas mi si diggante weeru ko juin ak juillet bi àgg na ba si téeméer boo jël ñeent fukk yàkk juróom réew mi quotidien di ñu xibaar ni démb rek Sénégal wàññi na téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñu am jàngoroy coronavirus ci seen yaram quotidien ne lu ñeel xeex bi ñuy xeex covid 19 bi Macky Sall benn tànk kanam la si am waaye ñaari tànk ginnaaw la ci daal di am waaye nag laa si yéene kay xamle na ni Sénégal wàññi na itam juróom ñaari junni si ñoo xam ni tane nañu si feebar bi le quotidien ñëw ak ñun si beneen virus di jàngoroy troisième mandat yéene kaay bi diñu xibaar ni Alassane Ouattara ak Alpha Condé seen test yi positif na maanaam dinañu nekk candidat si seen jongante réew yi di ñëw gannaaw ñu defee ñaari mandat ba noppi nga xam ni moom la nit ñi wane ci xeex bi ñuy xeex covid 19 bi njiitu réew mi moo ngay menacé askan wi ndax bu ñu moyowul dina delloo si état d'urgence bi suuf soi tegca ni Macky mer na lool si ni nga xam ni noonu lañuy ñuy traité feebar covid 19 bi si média yi ba tax laas bind ni état bi moo ngay lal ay barrière am Walf Quotidien xëy fësal si xëtam bu njëkk beneen gox buy dund coowal suuf jamono di nooto guy jama yéenekaay bi ne leen dengleer mooy waaja am ñu àddu naka si mbir mu metti bu am lakk bu metti bu yóbbu juróomi nit yu bokk benn famille réew mi ko tijjee di ñu xam lekk jibi jool nga xam ni moo doon kilifa jaboot googu yéenekaay bi ne moom jool moo doon ki njëkk a gañe jongante English Lovers Awards di jongante ci kàllaamay anglais bi doon am ca RTS bokkoon na itam ci club d'anglais bu lycée Limamoulaye police ba nag li mu wax rekk mooy mbir mi lu loxo def la ba tax Macky Sall wax ni mbir mi garaaw na lool ba tax lii quotidien ne Sénégal dina porter ñu jeexal xibaar ci mbir mu doy waar bu ñu nemmeeku fële ca benn centre de traitement di fa ñuy fajee ñi feebar covid 19 bi journal bi ne benn malaat bu covid 19 bi dal ay atam toll ci ñaar fukki at la ñu fa violé mbir ma nag ni mu demee yëpp di ngeen ko fekk ca page 6 bu journal ba la ñu ndarkee pelli ci yéenekaay yi ma delu leen seeni nopp ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf